يسين بك أحمد تيجان يعني نمولين كدان عندي ليرك تينك دني اندي كو خمني دفع يوري جانغور يبوب خمني أمنا بوب بو خمني تسور دف كوي سونال مانغي دان كتو دي بوب خران خمني سولين دالان دني داني بند لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاسئا متصدعا من قشية الله wa tilka al amthaalu nadribuha linnaasi laallahum yatafakkaruuna ba aaya ba jeex mi ngi ci saalu ñuy wax suratu xashri boo demee ci suratu xashri foofa la law anzalnaa nekk mag ñi nag dañ ko daan bind ci koo xam ne dafa yore bopp bu leen jaaxal am na ñoo xam ne seen bopp daf leen jaaxal ku nekk dem nañ mag ñi dañu daan bind law anzalnaa suñu ko bindee saafara bind ko juróom-ñeenti yoon lañ ko daan bind moom law anzalna bi ba aaya bi jeex ca suratu xashri daadi di kan bu ñu wutee benn gas benn pax suñu gasee pax bi waa ji nga xam ni moom la boppam di metti toujours bopp bi di metti kooka dafay boot ay loxoom ci ginnaawam di jël saafara bi di ko sotti ci bopp bi muy sëgg ci pax mi di ko ci sotti muy sëgg ci pax mi ba bopp bi tooy mu bàyyi ko mu bàyyi ko mu bàyyi ko mais nag kenn du ko raxase loxo da ko ci sotti noonu rek sans sa loxo laal ko su ko defee nga daal di delluwaat dencaat sa saafara su subaa nga defaat noonu bu ginnaaw subaa nga defaat noonu su yàlla dogalee fekk saafara bi noo ko loo ko indi ba mu ba mu nu mu toll rek bu la neexee mën nga ko def toujours lu tolloog juróom-ñeenti litre nga xam ne toujours lu tolloog juróom-ñeenti litre bis bu jot rek nga jël lu tolloog liitar rek wala genn wàllu litre nga sotti ñu sottil la ko ci bopp bi yow da ngay boot sa loxo ci sa ginnaaw yow mi bopp bi dal ki la koy sottil itam du ko raxas ak loxoom day jël rek sotti ko ci sa bopp nga sëgg ba mu nekk ci pax mi su paree nag su fekkee buy dem la ndox na moo xam ne dafa nekk ci place yi boo xam ne dafay continuer bu la neexee bu dee fu am suuf nga gasal ko suuf soo paree nga suul ko nga di ko def bis bu nekk yàlla mën na dogal incha allah ci kattanu yàlla euh, bopp buy netti boobu yàlla daf koy daal di saafara daanañ ci boole itam alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla ولو شاء لجعله ساكنا ميغي نيك سوره فرقان ايه كات ب سينك ايه 44 ب 45 تي سوره الفرقان موي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بوبو موي سوره فرقان سوكو ديفه كون غا لو انزلنا جروم نينتي يون boole ci alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walaw shaa la jaalahu saakinan nga daal koy booleeg aaya boobu ak law anzalna def ko ci lum tollook juróom-ñeenti liitar yi ndox bis bu jot waaye si ki am jàngoro bopp boobu boot ay loxoom ci ginnaawam jël saafara bi di ko sotti ci boppam moom ki koy sotti du ko laal ak loxoom ki ñu koy sotti du laal saafara bi ak ak loxoom bu sottee ba pare rek mu daal di jóg toog euh, mu daal di sotteeku maanaam lii wadd ci yaramam wadd ci yaramam ba pare lii wadd ci yaramam nag bu ko neexee moom mën na ko raay ci yaramam pour mu feeñ mais dañ lay wax ni saafara bi doo ko raxas ak sa loxo ki ñu koy jox du ko raxas ak loxoom ki ko koy sottilit du ko ko raxas ak ay loxoom su paree rek ala kulli xaal yàlla maanaam su ko continuer yàlla dana ko musal ci feebaru bopp boobu nga xam ne toujours daf koy sonal ñi leen indi litam dama ko daan wax boîte pharmacie boo xam ni njaboot gu nekk te di jullit war na koo am boîte pharmacie ndax mën nga toog ba guddi sa njaboot feebar wala mu tiit nga jaaxle bala ngaa dem ci benn sëriñ da ngay jaaxle doo xam foo jëm léegi nag nga dem ci koo xam ni mën na mbind mbind mu rafet mbind mu set mbind moo xam ni du am benn lënt-lënt ci ni nga koy binde nga bind xuraychin li fi xuraychin ba mu àgg 111 ngeen déglu ko li ilaafi fi cent 111 wallahu yaasimuka min annaasi 111 onze qul audu bi rabbi lfalaqi 111 onze qul audu bi rabbi nnaasi 111 onze kii nag bokkul ak lii ma doon wax léegi boo ak law antal naa ci feebaru bopp bi kii dama la indil muy loo xam ne mooy boîte pharmacie bu alquran nga xam ni danga koy def saafara bàyyee ko bis boo demee ba gis ni am na benn njaboot bu am lu ko dal léegi nga nattal ko ci kaas nga jox ko mu naan su fekkee seytaan la yàlla dana ko saafara bu dee xale bu tiit guddi am na lu ñu tuddee ummu sibyaan ummu sibyaan nag moom la mag ñi daan wax mbir feren wala rabu andale wala am na ñoo xam ne dañ leen di takkal téere téere boobu la ñuy dog daanu gis nga téere boobu jinne ji sonal xale bi téere bi moo koy protéger bu téere bi daanoo rek xale bi commencé indi ay problème léegi nag soo ko defelee lii xale boobu yàlla dana ko musal incha allah nga ko utal sa doom bu ndaw bu doog judd mën nga ko utal ko am quatre ans incha kon lii mooy saafara alquran ndax jullit warul waxuñu nag ni ndax dañu gis nit ñi dañuy ñii dañuy wut ay béjjën di ko takk ñii dañuy wut ay xeer di ko takk ñii dañuy wut ay pas-pas lépp dafa xaraam pour sunna kon dafa mel na rek alquran ak sunna bàyyeewuñu seeni njaboot lu ñu war a musloo kon alquran ak sunna waajal nañu seen njaboot giy ñëw ba bu ñu bëggee muslu nañu muslu ci alquran ak sunna te du ñu dem ci luy niroog xëram du ñu dem ci luy niroog bokkaale yàlla saafara leen seen jàngoro ba pare tabarakallahu andil leen seenu fajuk aajo te nag dama la wax ni alquran soo ci fajoo ba pare en même temps wér nga mais tuyaaba ngay am ndax jëfandikoo alquran la jullit war a def su ko defee kon loolu ngeen xam ni mooy médicament wala boîte pharmacie nga xam ni nit ku nekk war na koo am ci këram def ko ci ndox mu sell nag ndox mu sell denc ko bu njaboot gi jaaxlee rek mu tànqal ko ci kaas wala mag mu mënti doon mu jox ko mu naan yàlla daal di koy indil wér gi yaram ci côté bu mënti doon nag mënuñoo lim jàngoro yi dal nit kenn xamu ko mais daal bu fekkee jàngoro la boo xam ni bu bu naturel la wala jàngoro boo xam ne cheytaane moo ko def wala ngelaw wala jinne ak fu mënti doon ndax ngelaw dina feebarloo nit te du doon cheytaan kon loolu nañ koy bàyyi xel bu baax di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp yàlla yàlla tënk ñu ci alquran yàlla yàlla tënk ñu ci njubam gi nga xam ni la bëgg pour ku bëgg am tawxid al ilahiya yàlla nañ ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi leen di dig daje incha allah ba beneen yoon di ñaan yàlla lépp lu ngeen ci jëfandikoo ci barke alquran yal na ko yàlla nangu alquran nag moom wér na yow mi ko jëfandikoo yow su yow boo ci gisul dara jàppal ni alquran wér na yow yaa wéru mais alquran moom ala kulli haal moom wér na mat na kon ñu ngi leen di dig daje incha allah bu beneen yoon seen bokk Cheikh Ahmed Tidiane Niang wa Shamsu TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.